ma tudde moom démb la ni ma nag bu ma ñëwul nag di ma simmi sëriñ li may wax ne damaa bëgg ñëw ñëpp noppi sama soxna laay daanele ah jox sëñ bi sama cappali d'accord yaay bu bëccëg bi maay bu guddi monsieur le maire Babacar Ndaw kii mooy sama monsieur le maire xam nga lu may wax danaan ma bëgguma laa dikk ku ko xoolal ku dëggoo ngi nii ma ne ko lu tax bëggoo maa dikk mu ni ma damay bañ nga woo ma doo ma jot Mouhamed sama diggante ak yow bëgguma nga woo ma doo ma jot lu moo na ne dama la koy wax uba kii gàmmu Tiwaawan defal na ma teraanga boo xam ni daf may woowaat ma bañ koo jël ndax damay bañ mu ni damaa juum naa ko ko delloo xam nga wéef day delloo mais Orange Money yaay delloo yow mais bi ma yónnee xaalis Chérif di ma woo nanguma koo jël parce que na ni ma damaa jógee gàmm ni ko lu ma ndax jot nga ni ma la yónnee man ko dama foogoon ni da ngaa juum te tollu ma fu may delloowee avance kii sol lu ñuul li Serigne Ahmada xam na ko kii mooy Mbaye Diop Jamil Baye mooy Mbaye Diop Jamil xam nga mbay lu ma yàq sëriñ bi xam nga mbay mbay nee na ma duma la may CFA barke alxuraan Pape Diop mii boo musa nekk grand plateau danaa ma nuyul mbay ma ni ko Pape man mbay dafa mel ni neexuma ko parce que bu nu dajee faas daf may nuyu romb duma ko nuyu ba bés ñu daje mu ne ma Mouhamed man maay xool nit bëggal ko sama bopp nit du ma wax ci nit lu tax ma jàpp ko nit du ma wax ci nit lu tax ma bàyyi ko du ma déglu nit di wax ci sama sama nawle waaw kay ñii na ñëw sëñ bi Mbaye Diop loo xalaat ci teraanga xam nga ni Mouhamed booy buy ngéntee biir Dakar fuuy xam nga ni Mbaye Diop mii cummikaay la ci Mbaye Diop njaga njaga bu may ngéntee Dakar fuuy Mbaye Diop sama cummikaay la ci sëñ bi ñii la Adja Ngoy Fall yabal dama bëgg rek wax ci sama soxna ba pare kii mooy Cheikh Yaaba bu Serigne Babacar si soxna Ngoy Faal la ko yabal ak sama xarit bi nga xam ne man ak moom xuloo ñaari minute juboo ñaari eh, gis nga madame Gueye borom du bàyyi taw féex nañ leen fu ñu toog ñu jege parce que bëgg kenn dootu wax ku dul sëñ Ahmada ñas ñas ñas ñas yàlla seede na ni bég naa sëñ bi boo demee Kaolack li muy nekk tout tànk ci zahir zawiya la fa tabax zawiya boo demee ca zawiya ba da ngay yéemu danga naan ndax lu mel nii at yi mu toll war na ko mën a tabax bi muy defar fondement bi cofeel dox ci sunu diggante mu ne naa ko seet ni waa Kaolack yëpp oustaz Mouhamed amay seet daf ma teral ba jox ma yére yi ñuy teg ci kaw daf ma teral ba gunge ma dugal ma foo xam ni danga naan fi nit du fi dugg waaye sama soxna lay gërëm bu ko jafeloon rek mu metti sama soxna sëriñ sama soxna lay gërëm bu ko jafeloon rek mu metti comparé man li may wax ne yonent bi lay tagg kenn feesul sama bët waaye boo doon comparé ma nekk ci banlieue bi nekk yëmbal fii la juddoo fii la yaroo fii la màgge sama soxna musul xam luy seen TV bés bi ma koy xam xamul ni seen TV am na li tax ma xarsi sama tànk tubéy bi ma koy takk xamul ni seen TV am na kon xam nga jàppewu ma star sëñ bi lu lu garaaw laa lay wax kii papaam l'an 2000 la gaañu ma nekk benn daayira yëmbal raqu yaayam bu mbokkal ndey ak baay maye tuuru njaal fii ci kër gi l'an 2000 boobu laa gën a nekk ndaw ñaar fukki at dox na ci ma ñëw ci kër gi firi ko firi daayira bi looy toj day fekk nga xam ki ngay tojanteel xaw ma ko xaw ma dëj la ma firi ci kër gi ñibbi xoolal l'an 2000 vingt ans après vingt ans jouru gàmmu ci corona bi passé Assane Fall global textile sama xarit téyër bi jaay tisi ni ma kaay nga sagal ma saadakan journaliste doomam day def gàmmu dama bëgg nga sagal ma ñëw ma ne ko Assane damaa xat boobu maa ngi ñëw ci Modou Fall mi këram mu forcé ma ba ma jaar liberté cinq ni leen 5 minutes ku fekk ngay wax dinga ma may 5 minutes yi ma jël di waxtaan comme bët dafa sob moom muy séer bi bu rombee rek ma naan ah waa waa ndaw si moom yàlla bu ma am kër waayi ci séer su rombee rek ci biir waxtaan bi ma naan waaye ndaw si yàlla bu ma am kër waayi loolu waaye comme ñu ngi may woo di ma yàqamti Tamsir Ndiaye mais di ma woo enseigne ma ni bésu gàmm ci corona bi ñu invité ma Liberté cinq sama benn xarit taxaw leen moom mi ma jaar ci programme fekk muy servi bu rombee rek ma naan ay eh waay ndaw si yàlla bu ma am kër waaye bi ma yàqamtee di dem ñu may jox lekk fi ma toog ma ni leen damay dem mu ni nan ko def ci barket bi mu wàccee ci biti taxaw ma ne ko noo tudd bisu gàmm mun ma Aïcha laa tudd ma ne ko ah, yow de aawoo yonent bi ah, yow soxna yonent bi nga ni ko ndax mën naa am sa numéro mu jox ma ko ba ba di yàllay def fa laa yem ma ne ko ma ne ko Mouhamed laa tudd yow war na noo mën a xaritoo waaye fa laa yemandi en attendant ndax xam naa leen sëriñ alal ju bari taxaw na ci ay tànkam kilifa gu nekk traversé na ko borom personnalité bu ne taxaw na ci kanam ku wax rek mu ni Mouhamed laa bëgg te xam na ni Mouhamed ndongo daara la Babacar Kasim yi xam na ci dara mu mu jàpp rek ni ndongo daara la deuxième jour bu ñu gisee man ak moom xam nga lu ma wax man nag du ma ànd ak ku amul ambition bu ma leeree ni da ngay samp kër dugal njaboot toog gérer dinaa jël engagement ñu ànd ñun ñaar ma présenté ko sama mag ji mu ni ko li ma bëgg mooy bu fekkente ne am na ambition ma ànd ak moom ñuy ànd di jug di daanu di ànd di jug di daanu di ànd di jug di daanu ba bésu tey bii xam nga lu garaw vingt ans après ma duggaat sol ñetti ab du ñëw ba ci buntu kër gi fay sama oto parfum wu xeeñ daagu nànk lem sama yére yam ci yaayam yaayam moom a gën a bëgg moom yaayam bu yëgee ni fi laa fi du am jàmm bu may tëll muy ree yaayam ni ko ni ma yow mosoo fee ñëw ma ni ko fii déedéet mun ma yaa vingt ans ma mère bi nag tubaab la yaa vingt ans ci ginnaaw je te mun ma yaa vingt ans je te vis là est-ce que tu connais est-ce que ma belle ma ni ko c'est mun ma a habite à Yeumbeul là man ko oui moi j'habite au Yeumbeul ah mais kër gi li tax mu mett ci man mooy boo fi duggee amul kuy wax olof kenn du la may doole tout le monde vous parle français moo tax démb ma ni bu fekkonte ni yére dañ koy jaay ngir ngir bégal la yow dinaa ko def ndax mbaaxam ndax bu ma nee ko toogal mu toog sëñ bi chaque jour j'ai de bourrier démb nag nee naa ko liir bi bu ma duggee ci biir maire yi ma Mouhamed soo son fils elle dort il dort ma ne ko maire fexeel mu gérer français bi man ma gérer arabe ñëpp laa koy wax duma gërëm a gum de waaye sama soxna maa ngi koy ñaanal yal na yàlla sàmm la xaw ma beneen yoon de waaye fii nga teg sa tànk boo ko fi tegee lu ne mën na la fay fekk sëñ bi daaneele ci way juróom wu jigéen mu may jàppale mu ngi may soutenir mu ngi sonn ci man bu ma ñëwee fekk ko mu fomp sama marakis damay stressé maire bi bu ma ñëwee fekk kii nekk ci biir dafa naan ma da ngay dem grand plateau dañ lay xaar ayca ayca maas ma lekk daf may dàq ji ak fur wi ma ko maire dama yàqamti ñoom Moustapha Sow ko xam nañu li may wax bu ma ko woowee ni ko dama demoon conférence xale yi laa àndal ñu ngi ñëw ma ni ko waxal meer na defar bu ma ñëwee lépp laa fiy fekk ku ma am maire teralal na ma ko ku ma am maire jàppale na ko day yëkkati xaalis di ma jox maa ngi koy ñaanal yàlla bu ko màkk umpaat ñaanal ñëpp ku ma tuddul na ma jéggal bu ma sañoon Adja Ngoy Fall sëriñ bi ki mu yaba rek moo ci des pambay mii sama mag la mooy sunu taaw fi mu ne nii ñoo mbay góor a soog a ngi nii transport ëft yi ngay dégg du aftu la mboolem tata yi daw yëmbal Malika Kër Massar président bi nekk nii af si kii mooy président bi moo yor lépp kii mooy Tidja euh, mooy mooy mooy Cheikh mooy Tidiane ñoom ñooy ànd chaque jour ah mooy Baye Pape Seck an an an an ano séeri alima mam Cheikh borom këru alima Ndiol mu ngi nii ñëw na danoo jamaale man ak moom di jamaale ba ma gañe ko sëriñ bi Cheikh Sarr nag ma ko ñaanalal bu baax a baax a baax nag ma ñaan ku ma fàtte rek bu sëriñ bi daanelee ñëpp incha allahu taala dinañ leen gërëm Baye Moussa Fambaye ngi ne leen toog bu ko defee sëriñ bi ñuy jox ko te déglu ko mu daal di mu daal di mu daal di mu daal dugg ci waxtaan bi ana ana xaaral nañ ma may ana kii ngoy kii yabal xalxilaay wam wayan moom yonent bi azar ngam soxna su tudd Aysa Rasulullah na ñëpp def ni Muhammadu Rasulullah sa turandoo yonent bi soxna Aysa ngi nii am ngeen doom tudde yoon càlla Muhammad Maamadat na ñëpp def ni Muhammadu Rasulullah yaay Aysa fadratul min rusli illa basharat moom yonent bi xaw ma bi kalam bi yaaw na ñëpp def ni lu magal muhammadu rasulullahi ay way tatabaha wooy ay dara sama ma gën ñëpp bi ka luusuur watasmo bi ka sama ma yoon muhammad aliyaaw abada wooy aliyaaw ana ñu bëgg muhammadu rasulullah وبدل الوجود منك كريم من كريم أبوي يكرم ينشل محمد nasabul tasabul hulaa bil hulaa na ñëpp def ni ñu magal muhammadu rasulullahi xalda danu jëw ma jëw saaw habasa wa wooy sama géer a ci géer ñi te mooy yonent bi يدسم فار أنت في عاتمة الأسماء محمد صدوم جوجي مماي محمد رسول الله أنا نيكو بغ وموي باي سيسي كشمس من كمودين سوسوبي يونت بي أسفرت أنو ليلة الخرار نيب دفني يوم قال محمد رسول sama géer a gën ci géer te mooy yoon ca muhammad yoon ca muhammad yoon mawlidi lazi ay waay kaana li diini te mooy yonent bi sururun bi yow mi wasiyaaw muhammad sa doom jooje moom mooy muhammadu watawaalatee ay dara yaa gën maam watawaalatee sa maam a ci nit ñi te ca la Muhammad bëgg ndax sa tur wi wa imaamul mursalin borom ngalu gi jaam ñi sangub adduna ak alaxira ana ñu bëgg muhammadu rasulullahi muhammad maa la bëgg waata waalatey wata waalatey mm, waalatey ci yonent bi